kon ginnaaw bu mu leen nuyoo bokk yi fi teew yëpp di jël nuyoo bi di ko te ci loxol njiital réew mi président de la république Macky Sall di la daral jàmm ci turu sëriñ bi yaag mboolem ñi nga àndal ñëpp te buñ ci tuddee soxna Mariam Faye mi nga xam ne doom la ci sëriñ bi di léppam di ko am cofeel ci moom di di ci teg de l'intérieur mi nga xam ne moo doon taxaw liggéeyu màggal gi ñu di la seere lay taxawaayam ci màggal gi kon sëriñ bi nee na mi ngi lay nuyu di la sant bu baax di la gërëm rawatina kàddu yi nga xam ne biig rek fetliwaat ma nee naa la ko wax ci bis bu tedd bii nga xam ne ci lañ jub si muy màggal Tuubaa muy màggal gi nga xam ne ci la fi sëriñ Tuubaa bàyyi ko woon dem liggéey la rasulullahi sallallahu alayhi wa dem liggéey li aw xeetam muy liggéey boo xam ne ba muy dem yaakaar yàlla ak bëgg xeet li bindeef yi ak bëgg am daraje Abdullahi wa Xadimu Rasul rekk taxoon ba muy dem itam mu jaayante borom akuk dogg akuk ngëm ne astaxlisu li nafsi lépp maa koy jagoo bokkuma ko kenn àndut kenn kenn kenn wu ko mu ne ci condition yu metti ba yàlla suñ borom def liggéey bu mat ba liggéey bu matin rek suñ borom xamal ko ne natt bi jeex na ak pay ci des ba àddina di tukki itam saa su bis bi del siwaatee gépp may goo xam ne suñu borom mayoon na la ko dana dana ko dolliwaat ba mu tollaat noonu moo wax ne moo tax ba mu nekkee ca tukki bi la wax ne ijaal rujuuci ila qawmi saadatana wal takshina yowma jamhil xalqi niirana waxee tam ne lii aw silil la si uridu wan faxi biyal wara yaa muxniyan an mit faxi kon mooy xéewal yi nga xam ne suñ borom wàccee na ko Sénégal tey waxaat itam wax ne lii kun bikun sarmadan wacca al masiri sa jaw fal fara lil wara mislal maharini kon nag bu yàlla suñu borom defee màggal googu juñ ko màggal mu dem ba adduna sépp di ko wusi bareen ji liñ ci xam ci ay délégation yoo xam ne bàyyi ko nañ bitim réew ëpp na ñaar fukki réew di kon nag loolu ñaan gu nangu rek ko andi kon nag ñaan gu nongu rek mooy li am fii kon nag ñi ngi ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di jeexale kàddu yi rek nag ndax du gudd ci cant yi nga xam ne yóbbante ne woo ko ci président mooy cant yoo xam ne sëriñ bi ci biir xorom la ko tibbee ngir ànd bu rafet bi nga xam ne ànd nga ko sa moom ak jëflante bu rafet bi nga xam ne def nga ko sa digg moom ñaan la ci jiitu it mooy lim lay sant la yàlla mooy jikko ju baax ji la yàlla defal ndax nee na jikko ju baax mooy nungu dëgg nee na te gis na loolu ci yow nee bokk na ci taxawaay bu mat sëkk bi nga xam ne def nga ko ngir indi jàmm ci Sénégal ak indi jàmm ci réew mi mooy lii nga xam ne suñ borom defal na la ko te li gën a jafe ci àdduna nag mooy dugg ci nguur ci jàmm génn ci jàmm ak ndam nee na lii nga def nag nag nga xam ne yëkkati gu rëy la la jural ci àdduna si yëkkati gu rëy la la jural si digg Sénégal nee na nag moom yàlla boole na nag moom boole goo xam ne nam la ko daa waxee rek kóllëre gi mu fasante yow du tey rek du ngóor itam nee li fii mu ngi ci kaw suuf rek kóllëre gi saa su xëyee di yokk waaye du wàññi ko nee loola nag lépp lu yaa ko jëmbat ci sa digg ak moom ndax fonk koo ko fonk jàpp koo ko jàpp def koo ko def kilifa néew na weer dugg ba jeex te yónniwuma ci yow ay yitte te lépp njaboot gi la te yitte yoo ci dégg dañ ci def ba def ci lu mënut loola nag démb rek ci mujj loo xam ne neexut wax ci mboro waaye waxtu ne yaa ngi seetu bëggam di ko dàkk loo jàpp ne mbégteem rek na nga def ko nee na loolu nag mi ngi la koy seere di la sant di la xamal ne itam nag Sëriñ Tuubaa am na lu mu waxoon da bindoon wax ne anna man waasalani laa li xaradin dunyawin fa innahu yakunu min al muqarrabin وأن من واصلني للدنيا فقط فإن الله يكرمه ما دام حيا كيف كو خاني نيوغي تي مان تا الله خير كسه تخلا جوك يالا سوني بون دان لا بولا تي نيب غن جي تيب كو نيو تي ادنا تخلا جوغي تام نينا سا ديرو دوندو يالا سوني بون دان لاكو تيرالي كون كو خامني نيوغو تي سينتوا ياكار كو ادنا الله خير ما سام خير دال تاغا خامني سا غير دوند رك يالا لا تيرال كون داك سيرين بي وخون نا ما توك نالان لي تي سكنام موي داخالي سي غيناو كون داك لولو wax ba mu la koy wax waxi yéeg yéeg la kon na sam xel dal di la sant itam nag ci li nga def ci dëkku Sëriñ Tuubaa bi te lépp ma ci seere ci kanamam loo xam ne lu ma xam la muy lu wér ndax am nga fi fukki at ak ñaar ci ren waaye jëf nga fi jëf ju bari joo xam ne ku ko limoon tey dana ci bari sax lu mu fàtte waaye bokk na ci assainissement bi fukki at ñaari def nga ci lu mat ñeent fukki milliards yu juróom loolu jéggi bu rëy la kon loolu day mel ne bu demaatee rek assainissement gàllankoor yi ci dëkk bi dana jeex loolu itam def nga ci taxawaay def ci yitte def ci jom ndax assainissement day liggéey boo xam loo ci def weesu ko rek ñu fàtte ko waaye loolu lépp sëriñ bi gis na ko. bu dee ci wàllu ndox mi lim ci def ci ay forage ci biir dëkk Touba mën na fukki forage ak juróom-ñett loolu liggéey bu rëy la bokkut ak nag tëli yi nga xam ne def nga ko fi muy tëli yu bari bi ci mujj mooy bi corniche bi ñu tuddee 30 bi ëpp fukki milliards. bokk na ci it projet yu mag yi nga xam ne def nga ko fi ba ci jiitu mooy Ila Touba bi nga xam ne mën na ñeent téeméer bi daal di liggéey bu rek bokk ci sa projet yi gën a mag ci Sénégal ba ca dolli kuwaat mooy hôpital Cheikhul Khadim bi nga xam ne daaw jéeg lañ ko indigré moo itam nga def ci xaalis bu bari ak la def ca mat la bu faw sañu ba ca mujj nag te gën a ñor sëriñ bi bii ci guddi waxaat na ma naa la ko fàttali mooy liggéeyu université bi ndax université bi sëriñ bi ba mu dafa wax ne sama yitte jépp maa ngi ko ci jëmale ngir jàngal ndaw ñi xamal leen ak toqi leen ba mu ko yëkkatee rek yéen a jëng ci njëkkoon am man mii nga yónni woon ci moom ne ma bu ma soñoon moo bàyyi ma tabaxal ko lépp ndax xam naa fi mu toll ci moom te état bi mën na ko ci ñetti at wala ñeent ba ma ko waxee sëriñ bi sëñ bi wax la nam ko gisee ne la bu ma soñoon taalibe yi nga bàyyi ñu jëf ci waaye fa saasa nga ne lépp lu jëm ci tëli assainissement éclairage public lépp yaa ko def ba loola ña ngi ci liggéey ba sori na yemaatoo ci nag jëf jën ko ci mujj jëfal mooy bi université bi àggee sëriñ bi moom xam nga ne la sëriñ Tuubaa waxoon rek katabtu fil bahri anni laa amuddu yadi ila nasara abidil ma'i wa tini moom noonu lay doxee du la du sas kenn du laaj kenn mu yëkkati lu ma juróom benn téeméeri million dóor ko ci biir université bi ngir dund gone yi ba nga ko yëgee yëg diisaa nga ne ko loolu kenn warula ko teg fas naa yéen ma ne ci sama war goru nguur danaa fexe ba def ci budget bi situation yi nga xam ne ñu ngi koy defee université bi ñu boole ko ci. loola nag muy jëf joxoon da nga ko ci gàttandu ba nga ko ko defalee it lam la wax mooy loolu loola Sëñ Tuubaa ma sa defal rek lii dana la ci beraatal sa genn payu bopp kon nag na sama xel dal. mu dugal ci lu mat un milliard ci université bi ngir euh, dundub gone yi. ak di leen yor mooy situation boobu def na ko ci. loolu ah, ah, ah, bi ñu tàmbali liggéey bi rek lam ci jëkk def mooy yëkkati un def ko ci liggéey université bi te noonu loo ko defoon ci Masaalikul Jinaan te ñu bari yëguñ ko lu ci ne mu koy jëf daa wax sëñ bi ne ko bu ma soobee maa yow yàllaa ko yëg ku ko diggaa rek sëñ bi ko digg sëriñ bi ne kon lu mujj lii nee na la loo mas a defar sëñ Tuubaa lii nga ko defaat daan la ci beraata sa genn payu bopp kon nag na sama xel dal mu wóor ma ne keroog wax na ma ci biir ne ma dénk ga ma ko dénkoon Sëriñ Tuubaa wóor na ma ne moo ko may mu jug rafet gi kon nag loolu na nga xam daan la topp ba faw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu